nee na boo wëroon kajoor ak bawol ak feneen tam doo gis ku mel ne moom man nga ni sax boo wëroon penku ak sow ci gàttal doo gis ku mel ne moom kenn rek la amul ñaareel dee ko tagg kon tagg wu rafet te cay sàkku ngërëm taxtawi kon nga làq alfadla ngëneel la saax yoo sama àndaale wal xitqa ak gore ga ca sawara wal xurba ak jege ga maxal yu muy ànd ak barke min hu ci moom xabdan mbir mu ngay ab jaam radiyan bu di buñ gërëm boo saxoo di ko tagg day danga amee ca loolee ngëneel ak goreelug yàlla ci sawara ak ug jegeeg barke sotti ko nag jaam bu yàlla gërëm musa xadan mbir mu ngay ku ñu texeel mu bu xadan tey ku ñu soril minal xammi ci njàqare wal xammi aku tiis mu xaaban tey ku ñu wekk taqtaadu danga womat xaysan ab dund xaniyan bi aji neex ne boo ko jàppee te di ko tagg day yàllaa lay texeel sorilal la lépp luy tiis ak njàqare ngay dund dund bu neex bu ko defoon nag taqtaatu taatoom bi fee moom muy da nga dundee waaye dafa def fi daal nag taqtaadu bàyyi ko ci xaada fa huwa moom cheikhun ab sëriñ la abdoxaa bopp yoor yooru na siraajan di ab làmp mu niiran bi aji leeral xodwatan tey aw royteef sayidan tey ab sang sharifan tey aji tedd waliyan tey xejub yàlla waxoo moom xaysun ab taw la yox yi boobu dana dundale wayun jiitam yi musale waxaw sun te aw xetal la rahmatun te yërmandi la lil xibaadi ñeel jaam ñëpp abdoxaa yoor yooru na wasiyan di ku ñu dénk jaam ñi te boroomam moo ko dénk sëriñ la boo xam ne nee na ab làmp la buy leeral di royteef woo xam ne ku bëgg a àgg jàpp ci moom muy mel ne ab taw buy sotti di xettalee ko musale yàlla def ko mu yërmaandey mboolem jaamam ñi xas bu man doy na koo xam ne lam yet baaxu topp ko fi xasri ca pang ma naarun sawara yutrakoo def na bàyyi alzalimoona way tooñ ña fii xaa ca moom jusiyan mbir mi way sukk ak seeni bëti woom yene koo xam ne koo bañ a topp ne séentu bu ëllëgee dem sawara woo xam ne dafay nekk ak gaay tooñ seen bopp sukk ca ak seeni bëti woom lay sa wax nii du jariñ an hum walis ñoom xusóorun ay pale banawxaa yooyu tabaxoon nañ leen wa kunóosun ak ay koom ajaadooy rafetaloon nañu bixaa ci ñoom an nadiya an nadiya penc ya nee na gaa yooyee buñ demee sawara daañu xam ne paleñ amoon ci àdduna ak koom yu bari ya amul njëriñ dara amul benn njëriñ foofa yen dama dana rëccu alxaafiloona way sàggan ña in lam yatooboo ndéem tuubuñu waye sóoroo te ñuy siyaare xaadal waliya wi li waliyu alxaliya wi aji kawe nee na ñi sàggan day bu ñu tuubut ñëw siyaare sëñ bi te sàkku yërmande yàlla awe ci moom jëm si ci ñoom daal ñu rëcc loolu bu ëllëgee zaxamoo wax nañu ne ànd ko naka moom yu waxaa kii dana nuroonteeg moom nadd buñ jenn aji baax xadd ataa dikke na azzaaximoona way wax ña loolee xëy an mbir fariyan muy aji jommale mu ne am na ñu ne sëñ bi am na moroom ci misaal wala am na kenn ku ko nuru ni ñay wax loolu day wax ni lu ëpp ëpp lu jommale jommale ba li fi nekk waxidun kenn la koo xam ne maa in laxoo dee di ko ñeel min nazirin ndend lam yësal mësta deñ aarifan di aji xam safiyante aw tànneef wafiyante aji matal wala re aayilamantey géej aalimante aji xam mujjidante aji rafetal majjidante aji tedd saalihante aji yiw muslihante aji defar ganiyante aji woomal saniyante aji yëkkatiku daraja faayiqan te aji kawe raayiqan kuy aji yéemuloo ci ab taar jalilan ku di aji màgg jamilan te aji rafet haadiyan tey aji jubale haadiyan tey gaynde jaliyan tey aji feeñ ci wet xafiyan tey aji nëbbu ci wet nee na kenn la koo xam ne amul moroom di nitu yàlla koo xam ne dafa boole xam defaru tey defare yàlla may ko jalaal ak jamaal mu jub te jubal di ku feeñ ci wet làqu ci wet rachidante aji jub mursidante aji jubal naqiyante aji set raqibante aji fuglu di aji bàyyi xel boroomam baasilante aji ñeme baasitante aji tàllal yedda yaari loxoom saxiyante aji tabe xaalisante aji sell muxlisan ku di aji sellal xabibante ab soppe tabibante ab docteur waalisan kuy aji donn yonente bi xaarisante aji fàggu wépp yiw xad arda ko gërëmloona alwaliya yàlla mi kilifa saabirante aji muñ shaakirante aji sant raoofante ab ñewante waa kon rahimante aji bari yërmande aabidante aji jaamu zahidan ku di aji dëddu ma barran ku baax xafiyan kuy aji matal wala re waasilan ku di aji àgg mu wasilan kuy aji àggale waxis nan tey sange man yi xam suy aji të lay sa yox shaadu ragal dawooxu ñoñam shayan dara fi dëhëri ci jenn jamono shaya shayan moo ci doon cosaan yàllaa ko def mu set wecc jub te jubal bu mu toll di tàllal loxoom ci ndeyjoor ak càmmoñ di joxe ngir yàlla di ku sell tey sellal di ko yàlla may mu fàggu lépp lu baax ba gërëm loo yàlla taxaw mi nag sant bari yërmaande lool ci jaami yàlla yi saxoo jaamook wan gannaaw lépp lu bokkut ak yàlla àgg tey àggale di kaaraange loo xam ne ku dugg ci biiram rek të nga ñooñam muy waa këram ak ñi aju ci moom jërul ñu ragal dara dara ci jenn jamono man ata ku dikkal baa ba xoo buntam ba yaroo mu di sàkku alhadaya ay may naa la mu am min fu ci moom maa loo xam ne faaxa kawe na xaqan ci dëgg-dëgg sariyan am yool ku ñëw ci buntub sëñ bi bëgg ay may nga daldi am lu bare bari ba mel nag dex lu kawek dex sax aw ataa wala mu dikk liqtinaa si ilmin ngir rëbb xam-xam xawish bi aji jafe naa la kon mu am minhu ci moom fatwa ak ubbee wa fatxan ak ubbi jaliyan guy aji feeñ fatwa mooy ñu tontu ko lam doon laaj lu ci sharia wax fatwa nag mooy ñu may ko ak ubbi mu ubbi ko kumpaam deñ ku ñëw ci sëñ bi ndax bëgg xam-xam boo xam ne di laa tëx mënoo ko woon a am fi saasa mu daal lay ubbi nga nekk géej aw ataa wala mu dikk laa idan ngir mu muy aji wéeru illahi jëm ci moom li xaw fi ngir ragal xaal la kon wàcc aljawaa njàqare la xan walis ko makaanan ci béréb xas yéen buy aji sore ku ñëw ci sëñ bi fekk dafa am lu ko tiital mu di ko daw tey mel ne kon njàqare loolee tey daw ba sori ko seen diggante duñ jote dara fa huwa moom ni ama amul moroom alwajihu mooy aji yëkkatiku ja daraja man raama ku sàkku xaytan ab taw min illahi sama ci buur asamaan si naa la kon mu amee bisi ci moom riyan ak màndi sëñ bi day ko am daraja fa yàlla ku bëgg yàlla sottal ko tawub may na ko jaari sëriñ bi daldi am lu bare bare lu ko màndal waxu moom rawdun ab dër la yuutii ka bopp dalay jox fi kulli xiinin ci bépp waxtu rutaban ay daraja tustahaa yi def na leen foytu waxit fan ak meññet janiyan muy aji yeesum ñor mais sëñ bi daa mel ne ab dër boo xam ne loo bëgg ci xeeti meññet ba sax ci meññeeti baati ni ko ay daraja rek bu dikkee mu jox la ca lu kawe kawe laysa li taani dédd ñeel dëbb ga dédd ñeel jam ga saax ya sama àndaale fii ci sëriñ bi majaalun benn wëndeelukaay ba li fi nekk radaa xëy na xaliyan di ajweet min jami haybin ci lépp sikk mboolem sikk jaami xante aji boole kullama sufoofin yëppi way sew maanaam yëppi yére yu rafet te sew jihaaran ci njéeméer paxoo moom abbaha kullil kiraami mooy gën jaar taaru yu mboolem way tedd ña xolli yéen ci takkaay ne ne sëñ bi amul genn wet goo ko mën a jame man nga ne yàllaa ko may mu mucc ci lépp luy sikk ba noppi nag boole mboolem xeet rafet rafet yi gën a taaru mboolem ñu baax ña yarum ndéem dafa sàkku mufliqun aji tépp tanaa an tagg alayhi ci sëriñ bi naa la kon mu am yen ak lot wanaal te mu am nag riyen ak mandi wari yen ak neexub gis mu ne ku koy jéem a tagg xam naa ne moom doo mën a àgg fa nga war a àgg waaye nag jéem nga nga koy jéem a tagg ci ngay amee xéewal ak mandi ba doyal sëkk fa alayhi yàlla na doole nekk ci moom ridwaanu rabbin ngërëmal buur karimin bi aji tedd naa la boobu am na min ci moom sabxan jiitu wa fadlan ak ngëneel wa walyan aku xejj nee na yàlla na ko yàlla doole gërëm moom mi ko may mu amee ci moom ngëneel amee ci moom ak xejj amee ci moom ak raw ñëpp macha daali feeg jooru na mun sirin aji sadd waxaal te mu wax jihaaran ci njéeméer ne xalli bàyyil salma salma wal uxta ak mbokk mu jigéen ma mayya te mooy mayya yaa li feek ku mel ni man di sadd way ma ngay wax ci kaw li kaw naa xalli salma wal uxta yaa xillu mayya defe looloo nga am yal na yàlla saxal ngërëmam loolu ci sëriñ bi walahu aydan alaa yëgal lam ya xijj jeqiwut xal bi sama xol suleyma suleyma wala layla du caageen layla walam tujriyaa te dawaluñu dam xi sama rongoñ gi naxaaran ci bëccëg wala laylan du caageenu ci guddi wama hayyajat te jeqiwut shawx yi sama cofeel gi riba un ay kéwél maanaam jigéen ñu mel ne ay kéwél bi xaajirin ca fa ñuy wax xaajir wala rasmu daarin du caageenu màndargam kër xadd xaxittu moom miinoon naa bi xaaca moom ahlan ñooñ mu ne baykat yi de moom yàgg nañoo wax ne fàttali ku mel ne Suleymaan mbaa Laylaa dafa yëngal seen xol ñoom ba ñuy jooy mbaa boog ñu ne dañoo taxawoon ci béréb boo xam ne seeni mbokk fa dëkkoon seen xol jeex ñu fàttali ku démb daal di jooy mbaa jigéen ñu rafet ba mel ne ay kéwél yi ci haajir tax seen xol fees ci sopp jigéen ñooñee ba ñuy jooy mu ne waaye man de yooyu yëpp amu ci lenn loo xam ne yëngal na ma ba man maa jooyloo genn rongooñ du ci guddi du ci bëccëg walaw laa sinim maarun du lukkoon ak weer xat badaa feeñ na bi njaareema ci njaareem lamal taxabat du tàkk naa rustiyaaxin sawaroo cofeel uslaawu def na ma lakk mooy def na ma jaar bi xaaca moom nee na man day sëriñ bee ca njaareem di weer wuy gindee di weer wuy leeral daal moom lay sopp ba sama xol mel ni day jëf-jëf yi tàkk waaye leneen daal moom luy jeexal sama xol gisuma ko wa zaaka kookee allësi mooy ka nga xam ne an saa fàtteloo na maxaani ay kër wala ay dal turaa yi def na ji si bihaa ci ñoom rawaanin ay jongoma ka am saalil bu dóor yu mel ne ki ay weer mata tuj laa saa yoo xam ne def na leen muri nee na sëriñ boobu day mooy tax ma fàtte lépp luy kër ak dal boo xam ne day ne ay jongoma fa nekk yu ñu yéem seenu taar banaa boo leen muree dañuy mel ne weer loolu lépp de fàtte naa ko ndax sëriñ boobu wa daaka googee allazi mooy ka nga xam ne yoon naa def na ko jublu ida xiila ndeem waxees na xaatimun xaatim wa in xiila ndeem waxees na jiili yun ko jug jiili fa dàgg kookee allazi mooy ka nga xam ne yuj laa def na ko feeñal nee na kooku day mooy ki nga xam bi ñu dee wax tabe banaa xaatim moom mooy moo tax ñu wax moom sëriñ bi tax ñu wax buñ dee wax borom dara ji ju rëy fa yàlla bay tudd abdul xaadir al jili moom de mooy jilim waa jamono ji xoo moom ibnu xabibillahi mooy doomi xabibillah ahmadu te mooy ahmad man ka nga xamee la xaw ñel na ko maqaamun maqaama xad yon laa bopp baraana bu def ko yëkkati xalaa kulil akaabiri ci mboolem way mageña ne mooy doomi xabibullah ji nga xam ne yàlla may na ko maqaam bu féete kaw mboolem maqaama yi gaa yu kawe huwa moom alfaiqul aqraani mooy aji kawe maasiya fil xilmi ci xam-xam wa tuqaa ak ragal yàlla wuyuk sibu te dana fàgguloo almaajida aji tedd ja alfadla ngëneel la fi kulli shay'in ci mépp mbir ne mooy ki yàlla def mu féete kaw ay maasam mooy li féete kaw ci xam-xam ragal yàlla te boo bëggee tedd nga moo la mën a fàggul tedd nga ngëneel ci wet gu ne huwa moom al mufliqu mooy aji tépp ja al munshi kay aji sos xasaida ay xasida jàmmatan yu aji bari bi matxi nabiyin ci tagg ab yonante lam yenal boobu amut sarmadul mukk mislan am kem alayhi yàlla na doole nekk ci moom maal aali ànd ak ñooñ ña alkiraam yi ñi di way tedd wa sahbi ak ay sahabaam salaatun dolli teral minallaahi tukkee ci yàlla alkarim mi aji tedd allësi ma nga xam ne ala yëkkati na mbiram leen sëñ bi mooy ki mën a wax ba yéem ñëpp te jëmale ay waxam nag ci tagg yonante bi xasida yoo xam ne ni yonante bi ñàkki moroom noonu la xasida yi ñàkki moroom bu jul nag ci yonante bi doole jàll ilaa an tasamma jëm ci ba mu tuddoo bil xadiimi ci alxadiim fa asbaxat ci xëy xataayaahu mayam ya misla wabli di kem waame wa ba li fi nekk faaxat kawe nañu ñoom may ya al wab la waame nee na saxoo tagg yonante bi di ko liggéeyal moo tax mu far tudd alxadiim yàlla ak yonante bi sotlu ko ay may yoo xam ne daa njëkk ne daa toll ne waame ne déet may kay ñoo ëpp waame fa man lam yu saaxibuhu koo xam ne àndoowul ak moom wayatlub te muy sàkku rachadahoo jubam nga fa daaka kookee chaq yun aji taxee di la lam yëkkun kook nekkut ahlan di aji yelloo lil hudaa ñeel jub mu ne ku bëgg ak jub weesu fi sëriñ bi day koo xam ne yelloowut ak jub day rek ku yelloo texee di moo tax mu jóg teggi sëriñ bi jalilun aji màgg la jamilun te aji rafet la lam yesal kook dañut mësta deñ xayra mosidin di gën ji aji jubale mu rabbinte aji tërbiyaa la mu raqinte aji tarxiyaa azamul kurama te mooy gën jaa màggi way tedd ña nay leen ci may yàlla da ko booleel jalaal ak jamaal muy koo xam ne fu mu toll mi ngi tarbiyaa ka tarxiyaa ka jubal doomi aadama yi yàlla may ko mboolem gaayu tedd yi mu ci ëppleeg may patan waa ju baax la fadluhoo ko ngëneelam shaayihun aji siiw la fi sharxi ci penku wal xarbi ak soowu wa fil jinni ak ci jinne max insin ànd ak nit wa fil malay ak ca mbooloo ma al a'la ma gën a kawe waa ju baax la joo xam ne ngëneelam siiw na fu ne siiw na ci penkook soowu siiw na ci biir nit ak jinne siiw foofee ci almalawul axlaa faru yaag malaaka yu sell yi nekk fa kullu azimil qawmi jépp aji màggi aw nit maanaam jépp waaye ju màgg ju aw nit am fii kulli buqaatin ci bépp pàkk talaaxu da nga ko gis tiflan muy kem gone la daa ustaazina fa sunu sëriñ bi almootali bi aji kawe nee na koo xam ne fa mu nekk dañ ko fay yéem ci nu mu kawee bu dikkee ba fi sëñ bi rek day mel ne gone ci moom mooy lu waay réy réy ci béréb ndax beru ga ak ñàkk taseeg sëñ bi boo ko tëkkalee sëñ bi daal di mel ne gone ci moom fala xadra déet daraja lil xaali di ñeel aji kawe ja ita kaana bu nekkee xinde foofa moom wala xilma te dit xam-xam lil man xooti di ñeel ku ñuy melal bil xilmi ci xam-xam in xàll ndem wàcc na leen sëñ bi daraja am daa kawe ba nga xamee ne lu waay kawe-kawe daraja boo xasee nekk fi moom day mel ne amoo dara ci daraja maanaam daraja sëñ bi day sàng sa daraja ba mel ne amoo ci dara xam-xam bi ko yàlla defal it jéggi dayoo ba nga xamee ne ku ñu wax ne boroom xam-xam la bu dendeeg moom rek day mel ne mës ta xam dara faqul waxal li lës yi ñeel ka nga xam ne xadd xaaqaxoo gàllankoor na ko an wëlis ko wirdu xoo wirdam wa yaruumu muy sàkku tariqal xilmi yoonu xam-xam jaxlan ci réer waxat dalla te mbir moom sànku na ne ko fa way xàkk ay gore yow alxiq nag la bind te mooy tax mu neex a peese waaye daa mel ne il xaq yéegal laxiqa yal xaqu su boobaa njàngaale am sa bi am sa waslu bi ngir lor yooyu xëy na mooy gën a yell foofu fa way xàkk ay gore yow il xaq jotil yéegal bil xadimi ci sëriñ bi li koy taraa ngir nga gis xajaa iba fadlin kiimtaani ngëneel laatoo xat doy deefu leen lim wala tumla te deefu leen fite a dicté ñu koy bind yana ko yor wird ne day wut yoonu yàlla ne day wut xam-xam te demul ci sëriñ bi kooko sànku na réer na kooko daal nee ko gaawal dem ci sëriñ bi soo demee ci moom yàlla daal lay may ay ngëneel yoo xam ne mënisu ko wàññi mënisu ko bind wa illaa bu du loolu kakun kon nga nekk ubdu xookatan di ab reetaanukaay ay suma tura foofu xam def na la gis walan tajida te doo am asanda muur ma al marooma ma di muñu sàkku wala fadla du caageenu ngëneel la man na it asanda texe ga mu ne daal ku jàpp wird rek jàpp ne loolu doy na ba dem ci sëriñ bi du mujj lu may ñu koy reetaan te lam bëggoon ba tax muy sonn muy texe ak ngëneel du ko am isaa upp miata ndeem xemam lof na la fii bi yooti nucc ci néegi paju aajo fatiha ana nga leen dikkal min abuwaa bi xaa jaare ko ci seeni bunt awlaa wala déet boo ko ci jaarewut xamaa lu màgg-màgg ax bala yàq na alxaq la xel ma nee na paju aajo daam ay néeg yu ko yàlla dénk ci coobareem daam néeg yu ko yàlla denc boo bëggee nag paju aaju yooyee da ngay dem ba ci néeg yooyee ba noppi awe ca bunt ba te bañ a mooy bunt ba ndax néeg bu ne moom da ngay jaar ci bunt ba yor caabi ja door caa mën a jàll boo ko deful rek nga xam ne sam xel dafa naqari mooy dangaa yéewut te kon doo am la nga bëgg wane ne sëñ bi mooy buntu pajug aajo soo bëggee sa aajo faju da ngay aw ca sëriñ bi mooy buntu ba boo ko deful nag dangaa sànku dangaa gàttum xel rek siraajun ab làmp la muniirun bu di aji leeral dillu rabbi bopp keruk sama boroom bi ardihi nekk na ca suufam sa liman ñeel koo xam ne raama sàkku na nuuran leer fil gayaahi bi ci biir lëndëm ya aw dillan wala ker nee na ku nekk ci lëndëm te bëgg leer nga xam ne sëriñ bi mooy làmp bi yàlla bu leer ba mën a leeral ku nekk ci suuf bu ker gu keral ker gu dëll gu ko keral nga xam ne sëñ bi mooy keru yàlla gu dëll gi ko mën a keral mataa ji tuxoo saa yu moo ko dikkalee yow mën ci ab bis talaqaaniya taseeg man an na daa tab ga wa asbaxtu te ma xëy mu bu tallan di aju tooy fii baxarin ci géej mi na mucc ci pajug aajo nee na saa yu ma ñëwee ci moom rek mayam yu bari yi damay gàttandu su ko defee li ñuy wax paju aajo day mel ne géej ma dugg ca biir ba lab ca mooy rek sama aajo faju lool lool sama saala dañut yekk soo nii di ma wodde bi maa ci loo xam ne raaq yéemuloo na manzaran ci ab xoolukaay wa maa siltu te dañu ma ak suufu di ko wodde mustaxlan la ñuy neexlu minal mat ci tagg neen sëñ bi dañu dima solal yéeyu yéeme yéeme ku ko xool naw ko waaye ma itam dañu ma di ko tagg ay tagg yu neex a neex yoo xam ne ko dégg neexlu ko wa indrumtu ndem sàkku naa xaajan aajo minhu ci moom waafat kun dikk mawaahibun ay may tu say yiru yooyu danañu mujjal waaral xaaji aji jafe aajo ja fii xaaji luñ ci lu gaaw gaaw sëxlan muy aji yomb nee na saa yu ma sàkkoo lenn ci moom rek mu daal may defal ay may yu bare bari yoo xam ne lépp lu ma amoon ci aajo muy jafe da yomb fa saasay saasa us ni danaa tagg alihi ci moom bi maa ci la nga xam ne aftaaxu danaa ko man waxad wanaa te lott na bi daa di sama daa maxal aqlaami ànd ak xalima ya wal xalbu te mbir moom xol ba maa mal la yokkatut dama koy jéem a tagg kem sama kàttan su fekkee ne daa ji ma ngay jeex xalima yi di dam maka tële itam xol bi moom mi ngi gën di yees di gën a yéene rek tagg yi waaye xol bi moom du dàcc du doyal xol bi moom doyal mukk ci tagg yi xëy na xalima yi ñooy dem ba lott daa ji jeex rek waaye xol bi moom gën di yees balaw saa xadat ni doonte dimbale woon na ma lus nu kulli qabilatin way rafet làmmeñ ñi gépp giir way jaawoote ñu dikke bi axlaama ci gën jaa neexi la nga xam ne yuqaal def na wax ni huwa moom al axlaam mooy la gën a neex la kun naa kon nu nekk maxan mboole sunu kalmu bu tax yi ni ki aji sàkku jaan la xaylamin def géej bi dalwin ci ab baak wa an yax tadda ak mu lim ramlan ab beeñ fii daxari si jamonoom ja mu ne su fekkoon ne giir gu nekk ña ca dàq wax dañoo ñëw ne dañ muy dimbale ci tagg sëriñ bi kenn ku ci nekk wax la dàq ci lu ñuy wax bañ ne la mu wax moo dàq lépp lu neex lu ñuy wax ko it maa ngi ñoom ñëpp boo nu seetloo dañuy mel ne ku jël baag bëgg caa def lu toll ne géej mbaag dex mbaa nga fekk suufus beñ nga ne daa ko bëgg a wàññi par benn benn fépp beñ yi la bëgg a wàññi ne ko it noonu lay mel ataala yàlla na dolle yàggal ilaahul xarsi buurub aras fii naa ci nun baqaahoo desam nga wa ardaahu te mu gërëmloo ko fi daare ni ci yaari kër yi irda aman gërëmloo ka nga xam ne ala yëkkati na ko bi jaaxir rasooli ci daraja yonante ba al mustafa bari biñ tànn al mujtaba bari biñ taamu allësi ka nga xam ne xabaahu may na ko bi fadlin ci ngëneel la meenal fu bopp mësu koo am ibrahim seen mus cam aslan ci cosaan àll yàlla na doole nekk ci moom ma al ali ànd ak ñooñ ña alkiraami ña di way tedd wa saxabi ak saxabaam ya salaama lësi yaari musali yàlla mi nga xam ne ansa fàtteloona fu aadi sama xol hawa layla sopp layla dafa ñaanal sëriñ bi yàlla gën ko fee yàggal gën koo dolli ngërëm ci daraja yonent bi nga xam ne daa soob yàlla mu may ko lu musta may kenn yonente boobu yàlla na ko yàlla doole saxalal teraanga ak jàmm yàlla mi nga xam ne moo ko may xolam fàtte jongama ak lépp lu xeetoog jongama gisatut bëggatut moom xol bi lu may sëriñ bi wala hu aydan xamitu sant naa ilaahal xarsi buurub aras xamdan cant bila xaddinjul lim wa ashkuru hoote maa ngi koy gërëm shukran ngërëm kasiran luy aji bari bila xaddin ci lu limit xalaamaa ci li nga xam ne xabaa maye na ko min fadlihi ci ngëneelam bi tafaddulin ci ak gëne mooy ci ak baaxe bi cheikh yi ci sama sëriñ bi xuttu bil ji li koy xuttu bu maas gi ahmada te mooy ahmad dil maj di koy borom tedd nga la nee na maa ngi sant yàlla cant koo xam ne mënees koo wàññi di ko gërëm ngërëm loo xam ne amul yemukaay ci li munu may baaxee na ko mooy sëriñ bi sëriñ bi munu may mën nu fexe ba sant ko ci mbaa gërëm ko ci cant ngërëm yey yàlla malaadun ab wóorukaay la lëxoo boobu ñeel na ko fadlun nganeel xalaa kulli fadilin ci yëpp aji gan wa fardun te kenn la lëxoo ko ñeel na ko jaaxun daraja xalaa kulli ma fardin ci kaw kenn ku ne maa mi jokk ci kulli da ko yokk rek mooy xalaa kulli ma fardin ñene wóorukaay la boo xam ne moo gën képp kuñ naa yàllaa ko def muy ko am gëneel ku baax kenn la koo xam ne itam moo féete kaw képp ku bokkut ak moom mu shayidu rukk nit diini mooy aji yëkkati ponkub diine ba'dan hidaamihi ci gannaaw màbbam ga wa munqidu kullil muslimina te mooy aji xett li mboolem julit ña minal waq di ca tàkk-tàkk muy sawara murabbin aji tarbiya la muraqin te aji tarqiya la laa yónni koog du deñ mustaamilal jidd di aji jëfandikoo ak farlu bil jaddi ànd ak muur xan sulooki yi wali sóoboom ga yoonu yàlla wa tasliiki yi akuk sóobeem mooy awale ja mu ne diine bu fekkoon day ab tabax mbaa muy kenn lu dëgër woon xam ne kon daa mel ne tabax ba mbaa kennu la dafa màbboon daanu sëñ bi nag sëñ bi nag ñëw yëkkati ko tabaxaat ko